¡Hola! léegi. Anh Linh đã ai ngon, anh Linh chạy 願い sama papa Ousseynou dem dama judd fekk muy ànd ak sama papa lu ñuy def ñuy ñëw fii ci ñàkku rab di ko tàmbalee fii di ko àggale ñàkk moo tax su ma taxawee tey fii te tudduma turam day am lu manqué ndax fii sama turandoo yaay boo xam ne magum jëmale muy umu mu dem kon loolu wane na rek kóllëre bi sama waajur amoon ak waa Niakoul di nuyu sama mag Maodo Kassé di nuyu suñu présidente Madeleine présidente conseil départemental di nuyu kilifa ñi fi nekk ñëpp mais nag ma taxaw ci sama mag sama xarit muy Cheikh Ndour damay taxaw ci moom ndax lii du lu bees sama jaxasoog moom day koo xamante ne si ñàkku rab daf ko wóolu ndaw ñàkku wóolu ko kilifa ñàkku rab wóolu ko mu ci waxtaan ak man di ma xamal lu bare ci ñàkku rab ñàkku kon ñu ngi leen di wax bisimila ci communauté Tivaouane Peulh su ma ne bisimila waxin la ndax lu baax ci commune Tivaouane Peulh ñàgg ñàkku rab ci mi ngi ci loxo ñàkku rab mu ngi ci tey boo demee ñàgg njabootu ñàgg ak njabootu ñàkku rab benn lañ tey boo demee Tivaouane Peulh njaboot gi benn la suufu ñàkku rab mi ngi Tivaouane Peulh suufu ñàkku rab mi ngi ñàgg kon tey bu ñàkku rab Tivaouane Peulh ak ñàgg am na nekk benn foog naa ne lu ñëpp doon ñaan la may nuyu njiit yi nga xam ne ñoom ñoo jiite ay ASC yi fi nekk di nuyu sama xarit président ASC Lakkale Mor di ko jox wàccuwaayam di nuyu tamit waa ASC Diso ak waa ASC Lébu bi di ñaan yàlla tey final bi ndam jogé fi waye di délégation bi and ak man ñep suma limé limee mais fi la fekk sama conseil municipal bi ñi ñëw fekk fi ay responsable politique yu bare yo xamante fi lañ fekk waye nak di ci beral loxo sama rek sama xarit Alsane Diallo di ko jox wàccuwaayam ci yéene bi nga xamna amna ko ci commune bi yépp muy ci ñàkku rab ndax Alassane boo koy tudd ñàkku rab la tàmbalee kon Alassane Diallo Alassane commune bi la waaye Alassane bu ñàkku rab la kon waa ñàkku rab kenn ku fi toog rek ak délégation bi ànd ak man yëpp di nuyu Bassirou Ka bi fi jógee léegi ak président Ousmane Ngoné ndax dañu am final bu ñu war présider fële ci Tivaouane waaye ñëwoon ànd ak ñun ci première mi bi fii bu fekkee. tëb naa ay tur ngeen baal ma maa ngi nuyu responsable yi fi nekk ñëpp Pape Sène ak délégation bi ngeen àndal Pape Diop Babacar bàyyiwuma kenn tey match bi ñu gis fii lu mu njëkk a wone mooy jeunesse su Niakourab vivacité am foog naa ne bu dee penalty la ñëpp fa la ñuy concentré wu kon buñ demee ba jub ko rek ñu taxaw ñu ñëpp ñu xool ko ndax lu am solo la foog naa mën nañ taxaw sax bañ tiré penalty bi du noonu waaw nañ taxaw bañ tiré penalty bi. gëna leen fa ci fa de réparation bi waaye il est en train de parler avec Bassirou Ndiaye ah c'est le capitaine ADFC ah, Disso et c'est le numéro 6 de le FC Leboumi moo koy waaj a door arbitre bi dem na xool ki nga xam ne ah, mooy le portier ADFC ah, Ah, a tirer ce penalty en ce qui dugalee Le la parce que pour le moment CFC du jour tout même par 2 à 0. Annulé. Mais mooy leen moi Moi nga le a li xam quel temps à quel temps a c'est le à quel avec son pied gauche On va marquer On c'est le

di ñaan suñu borom mu dellu si suñu wet ci nu gën a gaaw ndax ku baax la ku yàgg bëgg askan bi ku jàppale ñàkku rab ku taxawu ñàkku rab ku ma am yaakaar ne bu dellu siwee ñàkku rab dana gën a jëm ci kanam kon bi ma paree ci nuyoo yi di nuyu Aziz Ndoye di ko nuyu moom ak stafam di leen beral loxo ñoom bàyyiwuma ci kenn maa ngi nuyu Aziz maa ngi nuyu Alpha Sis maa ngi nuyu Ibrahima Ndaw kenn ku ci nekk maa leen di jox seen wàccuwaay mais di leen di xamal ne que ñàkku rab dëkku cosaan su ma ne dëkku cosaan loolu mooy lu bare lu baax loolu leen fi gis fii la soxal ko kon ñàkku rab dafa jot dafa jot ñàkku rab ñu gën ko fësal ñàkku rab ñu gën ko taxawu ñàkku ñu ànd ak leader yi nga xamante ni si ñoo nekk fii ci ñàkku rab bàyyiwuma kenn ñu gën a dëgëral ñàkku rab donte sax ñàkku rab na lu rëy ndax au-delà des responsables politiques yi nga xam ne ñi ngi fii ci ñàkku tey sunu mag bu mel ni góor a siiwal na ñàkku rab ci Sénégal gi yëpp ndax tey ku ne góor a xuma ne ñàkku a xuma li ko wonee rek jamono yi passé fii ci ñàgg amoon na njaal bu fa amoon muy ministre bi nga xamante ni si moo yore mbirum santé muy Diouf Sarr moom góoru xuma moo ko jël indi ko foofu ci ñàkkurat ci ci ñàgg ku def njaal bi ah di wax jeunesse bi di wax jeunesse bi ah na seen xel daal ñun yéen lañ fi nekkal te am naa yaakaar a nekk saafonte bi nga xam ne tàmbali nañ ko buñ ko wàccul incha allah danañ am développement yu bare tey ci terrain football bu ñu taxaw nii sax sama mag Cheikh Gueye mi ngi may sama rakk Cheikh Gueye président de zone mi ngi may xool xam naa su ma ne waa ñàkk la danañ ànd compacté ko dina mën a compacté ma ñàkk soo compacté fii waaye incha allah danañ compacté ci nawetaan bi ñàkk compacté terrain bi nga xam ne moom lañ tëj fii tey ndax wax dëgg na terrain football bi ay professionnels yu mag dañ ay joueurs yu ay dañ jouer di fi conditions yi nga xam ne ñu ngi koy jouer fii di di mais tey tamit leen di présenter tamit sama benn yaay boo xam ne mi ngi fi ma bëgg ngeen xam ko muy bi Sall ñu la ñu gis la presse bi di presse bi euh, te di leen di wax ne que euh, yéen responsable politique waa Niankourab bax na ñu def ben ndaje benn réunion donte sax yalla def na jotna rencontrer ay jeunes ñu expliquer ma ay yëf yu manqué fii ci Niankourab waaye yéen kilifa Niankourab bi jot nañu toog ñu waxtaan ñu and nek ben lepp lo xamne ne manqué na fii ci Niankourab waxuma ñu xaar élection way ñu tàmbali légui légui ndax kat ndax kat boo bëggee Niankourab ñëw fi سبنا وانياك لا ليكي لينو عند داي فك نغن لمين غيس لخو كون دو دا نكو تامل لي دو ني عند ني خول مان تي نياك لا جارو نغن دي خار ميري بي لو تي بري من نكو تي نكو ديف لي ما واخ لير ني دي خارو ما ميري بي لولن ما جوخو دي نكو تامل ديف كو بلا الكسيون président juste président Diouf jërëjëf président Diouf jërëjëf ma waxaat li ma wax yéen waa ñàkku rab nañu tegal réunion loolu leen ma joxoñ dinaa ko jël sama poos defar ko balaa ñu dem élection ana sama xarit Babacar Touré ana Babacar Touré Babacar Touré ana ma ana Babacar Touré sama xarit maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu ñëpp ngeen bal ma ci kàddu yi lu fi dëng mën la lu fi jub lu euh, ngeen xamante ne sa loolu la jërëjëf. À Paris ici, dans les capitaines seulement. On appelle les capitaines de nos équipes. S'il vous plaît, il a fait que le capitaine, quand on en même temps. le Moussa le dafa enveloppé enveloppé. Gabriel le enveloppé. Voilà. Maintenant avant de donner le grand transfert, on va appeler les arbitres. Les arbitres aussi. pour la prestation à cette finale. voilà Souleymane Gueye Abdoulaye Amna Bar Diallo. voilà merci.